yaakaar ci ëllëg nit noonu ngay xoole da xool fi nga jóge fi nga nekk tey nga xam est-ce que mën nga am yaakaar ci ëllëg am déet nañu xool démb xool tey ëllëg est-ce que war nañu am espoir am déet muy Sénégal gi yépp nag muy njabootu président Idrissa Seck comme njabootu président Macky Sall kon loolu nañu ko sant suñ borom loolu nañu sant ñaan ci yàlla gën a barkeel su yàlla gën ay barkeel Sénégal gën a jëm kanam seen njaboot yi gën a suqaliku Sénégal gën a jëm loolu la ñu war a def ñun ñëpp ñu gën a laxasaayu fii regret amu fi fii deltu ginnaaw amu fi ay tànk kanam la am amul tànk ginnaaw mais loolu la war a jàpp ñun ñëpp ci loolu la ñu war a liggéey loolu la war a liggéey te ànd bi Sénégal da ko soxla nañ xool Sénégal tey fi mu toll fi nga président laar bëgg a jëmee ak président sekk ni mu taxaw yooyu tam ak ni mu koy jàppale ak njabootam ni ñu laxasaayoo kon ku leen bëgg ku bëgg Sénégal ànd boobu ñaan jëm kanam ànd boobu laxasaa yu ñëw jàppale leen loolu lañu war a def en tout cas la jeunesse ni ngeen ci taxawee rafetlu nañ ko kon jeunesse jaagi ak sa mbokk yi nga ko àndal muy ñoom Cheikh ak jeunesse su APR yëpp ngeen gën a laxasaay xam ne ñun dinañ ne seen wet man fu ngeen xëcc fu ngeen joxoñ man ñëw ànd koog yéen fu ngeen joxoñ ma ñëw ànd koog yéen loolu ci njaboot nag par loyauté au président Idrissa Seck par loyauté au président Macky Sall fu ngeen joxoñ xam leen ne maa ngi seen wet soxluwuma sax remerciement yi mbax ndax man li may def par devoir la man li may def par devoir la def ma ko pour remercier bërki dem damay wax ak moom mu ni ma man sax xaw ma woon lii nga def yëpp man ko président jomb na di def naan la président def naa ni mbax sax que par devoir laa koy def ndax yow foo war a taxaw rek man jàpp naa ni war naa la fa jéem a jéem nag laa man jéem jéem dinaa ko jéem a wut jéem ko wuti seen wet jéem ko wuti ci anciens yi jéem ko wuti ci femmes yi jéem ko ci waa Thiès ba fa ma mën ma xam ne foofu laa mën la ca des moom mu ñëw matale man loolooy sama débat ci moom man yi man loolu laa mën ci moom mënuma la mu mën yëpp nag moom su ñëwee mottali mais man daal dinaa ne ci waar bi su ma ñëwee encouragé ma te li may soxla rek mu ñëw yokk ma ñaan ma rek ma ne ci waar bi continué ko di ko ànd nag sama sama frère yii comme ni ma leen wax sànq ñun ñëpp ñu ànd noo ko def ko benn suñ defee bloc boobu rek yàlla dinañ dafa ndax tey su ñu waxee rek comme ni ko ministre kii euh, nu mu tudd maire Aliou Sow waxee fii perte amu fi Thiès perte amu fi de on n'a rien perdu ndax moom su dee majorité coalition ngay ko yor kon perte amu fi li ci nekk rek mooy nañ gën a laxasaayu waat tàppe xol yi yéenante jàmm joxante loxo yëkkatee ndoo tegandoo lu ñu yëkkati nag nañ ko mën a kii loolu moo ci nekk suñ defee noonu rek yàlla dafa ñu sutura kon loolu moo ci nekk monsieur le ci loolu nag à gis naa jéego yi nga ciy def yow ak docteur Ndiaye ak euh, ajaa Bint jeunes yi dañ la leen di dénk nga gën leen encadré ñoom ñëpp sa njaboot lañ man aw ma jot yàlla dogal na comme maa ngi au niveau du gouvernement am na loo xam peut-être dootuma ko mën monsieur le maire yow yaa fi nekk madame le maire nga jàppale Aliou yéen ñaar encadré leen seen su ngeen leen jàppalee rek man ak Idrissa amatuñ ci waar ndax yéen ñaar dafa doy sëkk ndax ku ne ci yéen mën na ko nag suñ tegee xali seen loxo. kon njaboot yi teg nañ ko seen loxo monsieur le maire yaa ci ëpp jot kii jigéen la suñu yaay la yow encadré sa njaboot yi ñii say jàmbaar lañ say rakk lañu loo ci nekk xamante nañ la ci ne sa jàppale la kon yow mën naa ni sa loxo lañ teg njaboot gi kon monsieur le maire yow xamal ni ñu ngi sa ginnaaw di la ci jàppale nga encadré leen ñun am na loo xam ne dootuñu ko mën yow yàlla suturaal na la yaa ngi fi mën nga leen encadré jàppale leen kon loolu soo ko defee defal nga ko président Idrissa Seck defal nga ko président Macky li ci des ñun lu ñu mën a mën naa ne xëcc ci kaw yootu ci kaw indi wàcc ci suuf ñun ñëpp ñu bokk loolu daal moo ci ne monsieur maire loolu tamit ñu ngi la koy ñaan di comme ni ko ni la ko président de Seck ñaane woon di ko ñaan également manam le maire ñun loolu moo ci suñ devoir li ci des ngeen xam ni par rapport ak li ñu doon wax sànq ci réseau sociaux yi ñun les réseaux sociaux yàlla dafa dogal le Sénégal président la dénk ma secteur bi mën naa le secteur du numérique d'une manière globale et des télécommunications le numérique global ci loolu Sénégal tey dafa war a sant suñ borom bi nga xamee ni sur le plan des infrastructures de télécommunication Sénégal référence la ci Sénégal mën naa di sax ci àdduna bi fi mu toll tey ci niveau de développement des infrastructures de télécommunication loolu moo tax réseaux sociaux yi seen développement da ngay xam ni c'est lié à la qualité des infrastructures numériques et de télécommunication o Sénégal loolu la donc comme yàlla dogal na Sénégal aménagement numérique bi maintenant fépp la am nañ assez de fibre am nañu assez de d'infrastructure kon kay nu dis application yi nu mu tudd ci réseau bi dana disponible fépp soo doon dem ci yenn réew yi doo am réseau wala doo am internet ñu koy jaayee peut-être dix mille francs heure kon kenn du am jotu na ci réseau yi di def loola neex ndax da ngay tal sa bopp soo defee connexion daal di yónnee sa benn mail wala wax sa benn message tëjaat fii nag dañu ko libéraliser ndax coût yi président na na wàcc na ci ñëpp jot kon ñëpp jot nañ ci nag ñun ñoo war a xool am xel xool nan lañ ko utiliser mu am njëriñ mu am ci askan wi am njëriñ ci sa bopp loolu moo ci nekk te loolu peut-être ñu bëri ñu ngi ci te xamuñu moo tax nañuy sensibiliser les citoyens sensibiliser jeunes yi sensibiliser ñi ne ci réseau yi ndax ñu bëri ñu ciy def loo xam ne xamuñu njeexital li xamuñu finalité bi moo tax ñu ciy egg ci yenn yi mais loolu dañu war a kon d' abord félicité wu ni Sénégal am nañu niveau de développement des réseau de télécommunication boo xam ni nañ naa ne tey mën nañu ni egg nañu fa dëkk Europe yi yëpp kon loolu ñu sant suñu borom d' abord sur le reste les usages sur les usages mooy nan lañ koy jëfandikoo. jëfandikoo mi nag dafa bëri façon am na ñoo xam ne suñu amul du ñu duñu duñu am dépense mooy ci réseau ci ko connecté la ñuy liggéey di ci def le commerce électronique di ci liggéey di ci gañ xaalis dignement loolu la war a encouragé am na ñoo xam ne nag malheureusement lañ ci jublu suñ jënee connexion mooy nan la ñuy connecté woo saaga ki wax ci lii lu bon poste lii def ci loolu ñooñu peut-être loolu leen ci ñor ñun nag suñu rôle en tant que euh, coalition qui àlla responsabilité de gouverner ce pays wane yoon boo xam ni dina indi njeexital kii dina indi suqaliku ci Sénégal indi jàmm ci Sénégal indi dal ci Sénégal suñu rôle suñu responsabilité mooy ci réseau yi ñu ciy wax loo xam ni dina jëmale Sénégal kanam dina indi orma ci réew mi dina indi dal ak sutura ci biir Sénégal ñun looloo ci suñu responsabilité te loolu nag loolu la gën a ñaaxe ñun suñuy ndaw mooy ngeen xam ni sur les réseaux sociaux ñun suñu rôle mooy de partager la vision du chef de l'État la vision du président Idrissa Seck ci comportement bu rafet ci comportement ci orma ci noo xam ne dina mën a tax Sénégal ku fa ku ko gis naw ko dina indi jàmm ak dal ci biir Sénégal Sénégal yépp nekk bokk ndey bokk bàyyi ku ciy woote leneen nga xam ni leneen nga ci woote mais ñun dooñu duñ la ca fekk am na nag loo xam ne ci mbiru politique ci mbiru politique laa loo xam ni comme ñenn ñi tey par les réseaux sociaux def nañ ko tribune politique wala nekk na seen ñoom seen espace politique donc de propagande politique ñun tamit war nañ organiser wu noo xam ni la nga xam ni moom la ñu xam ñun ci suñuy parti xam ko ci biir coalition bi ci loo xam ne gouvernement bi réalisé na ko ñu yóbbu ko fa pour Sénégal yépp xam bañ a réere mbir li nga xam ne ñu ngi koy réalisé loolu nag responsabilité boobu jeunes yi am nañ ci rôle sur le plan politique par l'organisation et la riposte politique yéen kon jeune frère organiser vous au niveau suñ sax wax dëgg yàlla il faut reconnaître ñun moom au niveau de la coalition et du parti Rewmi am na organisation boo xam ni quand même politique ci réseau yi am na dynamisme boo xam ñëpp coalition bi également ñoom it noonu lañ ci mel muy waa APR ñëpp xam nañ ko kon joxante leen loxo su ngeen defee link àndandoo nekk benn kenn du ñu registré ci biir réseaux sociaux yi kenn du ñu xam am mën naa ne kenn duñ fa dab moo tax benn waay ni ma opposition bi moo dominé réseaux sociaux yi ma ne ko loolu amul ñoom peut-être lañ ci sañ a wax wala la nga xam ni moo leen fa yóbbu wala moo leen tax a jóg tax a ñoo jóg ñun ñun li ñu tax a jóg mooy développement réew mi mais également jikko yi nan la ñuy def ba suñu suñu suñu euh, orma réew suñu drapeau réew mais également suñuy jikko yu rafet yi nga xam ni moom la ñu maam yi bàyyil nan la ñuy def ba promouvoir loolu ba nga xam ni mooy sax ci Sénégal ñun mooy suñu rôle ñun ndax ñun réew mi mënuñu ko gérer ba pare di wax loo xam di def loo xam day taal réew mi loolu sañ ñu ko kon ku ciy woote ji loolu nangeen indi la réponse ak réponse bi ci war pour loolu ñu mën ko andi loolu nag ñu ngi koy xaar ci yéen yéen ci sax mais na ngeen ko gën a dolli te loolu ci loolu aussi jaaji on est disposé on est aw bu vous encadrer on est aw bu vous soutenir on est prêt à vous appuyer d'ailleurs dégg naa sax benn waay ay kilifa sax ñett ma dégg leen ñuy wax naan ci cyber campus bu Thiès dañ fa installé ay machine installé fa ay jeunes ñun di saaga nit ñi ñun jomm nañu saaga ci réseau bi jomm nañ ci ko xam ko xam ku xam président sa Seck xam njabootam ni mu leen yare xam ni jomm nañ saaga ñu ñun suñ biir sax duñ saagante asama ak saaga keneen ñoo xamuñu ko amuñu culture boobu kon ñàkk xam moo tax ñuy wax loolu mais baal nañ leen ñun par les gestes yu rafet su ñuy rafet su ñuy jëf yu rafet nañ leen tontu ci loolu ñun loolooy suñu rôle ñu mais également xam naa ni ñun au niveau de la coalition disposition yi nga xam ni président la république am na ko ak leaderu coalition pour que ñun suñu rôle ak taxawaay ñu war a am ci réew mi réew ñu def kon loolu na ci seen xel dal na ci seen xel dal man loolu laa leen bëggoon wax di leen ko dénk di ko dénk sam boobu li ci des nag Thiès ñun par rapport ak fi ñu jëm muy incha allahu rabbi élection législative yi xam nañu ni loolu moom xaw ma lan la ñuy waxati de monsieur le maire élection législative yi moom wax nañ ko sànq kon comme fii perte ñu dara. ñépp d' accord nañ te déjà département sax dañ ko gagné déjà loolu moom c' est kon li ci des mooy consolider consolider mooy gën a dëgër déjà gagné nañ département pare wante li nga xam ne moo ñu rëccoon ci local yi ci par une dispersion de nos forces moom tey laa commencé gis muy reconstitué waat ndax tey gis naa ñi nga xam ni ñëpp ñoo waroon a ànd tey par des raisons yoo xam ni. ku nekk am na sa raison xam nga philosophie dañ naan chacun a raison chacun a sa raison mais xam naa ku nekk peut-être am na raison bu lu taxoon mu am lenn lu mu def loolu ñu nangu sant ko suñ borom nag ndax tey élection yi tax na biñ ci génnee ñun ñëpp mën naa ni jàngat nañ ci def nañ ci mën naa ni analyse tiré nañ ci ay leçons ba tax na tey ñëpp ñu ngi indiwaat xel yaa ngi ñëwaat xam ni ànd rek moo ñu jig ànd rek lañ war a def ndax ñun mënuñu def leen ndax ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk yéene ñoo bokk kilifa ñoo bokk ay kilifa ñoo bokk également li ñu bëgg ci Thiès mais également ñoo bokk ay ambition kon nañ leen joxante loxo nañ leen àndandoo nekk benn tàppe xol yi suñ ko defee lu ñuy yëkkati yàlla mën nañ ci defal ndam fi ñu jëm moi je si convaincu que la victoire donc de la coalition ci élection législative ñu jëm je n'ai aucun doute incha allah rabi kaa Thiès on va remporter les élections à plus de 60 pour cent ça moom je n'en loolu moom dudawuma ci moom maintenant nan lañ koy doxale rek mooy tàmbali yi ñu def nii ñu continuer ko ñu def ko est def ko nord def ko ci département bi def ko fépp moo tax j'en profite pour lancer un appel tàllal loxo ñëpp xam nii la ma leen waxoon sax man xëccoowuma dara xëccoowuma poste xëccoowuma poste dafa leen dànk rek xëccoowuma poste communal xëccoowuma poste départemental xëccoowuma poste national xëccoowuma ministre xëccoowuma député xëccoowuma dara xëccoowuma dara dafa am loo xam ni yàlla daf ma ko suturaal damaa dem France damaa dem France benn bis ma demoon seeti sama benn xarit muy sama rakk bi nga xam ni moo fi doon indil conteneur yi bi ma nekkee conseil départemental te mu mayoon ñu vingt mille masques yi mu invité ma France dans le Loiret ma dem au centre de la France ma dem daje benn responsable parti socialiste Khalifa Sall la àndal ci benn meeting guddi benn meeting temps yooyu seen élection locale yi la woon ñam ka muy doon liggéeyal doon ko wutal conteneur di ko jàppale ci conteneur mu invité ma foofu ma dem sénégalais bi ni ma man xalifa Sall la àndal parti socialiste laa bokk mais jatara yow ku la gis ku lay xool Idriss Seck mooy apparaître sa kanam mu ni ma suñ lay xool rek Idrissa Seck mooy feeñ sa kanam loolu lan moo koy indi ànd bu yàgg kon man ku ma su ma amee loolu ci Idrissa ci ànd bu yàgg kon am naa lépp kon man ñàkkuma dara man Idrissa Seck doy na ma amee Idrissa am naa lépp kon loolu laa leen di encouragé jeune frère ñun ñëpp nañ xam ni suñu sac suñu sac li nga xam ni yàlla suturaale nañu ko mooy le président Idrissa Seck kon nañ ko jàpp luñ ko jàpp doyul lu ñu engagé wu ci kanam ci ginnaawam doyul ñu laxasaay bu ñu bëgg dara bu ñu laaj dara bu ñu wut dara moom su amee ñu am te incha allah yàlla dina ko gën a may su ko gënee may ñu gën a am ñun tamit asalaamaaleykum di sant ñëpp di